asalaamaaleykum man la ma numbee ay waay tey nag maa ngi fii si Drink Park bi nekk deux fois Sacré-Cœur ay waay Drink Park bi ah ya? maa ngi leen di invité yéen sama eh yéen eh, para yi yéen laay ya, waxal de indi leen seen doom yu ndaw yéen seen mag yéen ñoom ñëpp mën nañoo ñëw fii ci Drink Park bi voilà après dañuy dem ci jeu bi ñu foo ñeeg escalier ñu foo ci ñëwaat bi lekk ba suur ay waay voilà boo bëgg nag am na am am suufu kàññee am domadaa am nañ ko dibi poulet dibi poulet léegi nag xoolal yéen ñëpp ñëw leen fii ci deux voies Sacré-Cœur yi ngeen ñëw ci Drink Park bi ñu foondoo ak yéen bu la neexee ah xoolal bu la neexee da indi sa famille ba fii nga bàyyi xale yi ñu fo yow nga toog ci restaurant bi taawale di lekk ay waay <laughs> wala xoolal bu la neexee tamit ah mën nga fi bàyyi xale bi deux heures de temps trois heures de temps une heure de temps nga dem doxi sa soxla ba ñetteel boo ñëwaatee ñu récupéré sa doom ay laaj taxaw xale bi day foo ba mu ñepp léegi nag drink party yéen doon gis Italie France te tey nag dañ leen ko indil fii Sénégal waaw drink <laughs> party Dakar deux voies Sacré-Cœur yi ay waay numéro baa ngi noonu am na espace wifi boo yore ngay connecté wu ñu di seetaan di connecté wu di jouer ay waay <laughs> voilà maag sama gars yi lekk

beli lagi yang ngi drink park ini, xoolal xoolal xale yi dañuy foo foo ñëwaat def lépp ay waay man jaar noonu dem man dama see xaju da ngay toog nga fo kenn du la déranger. Ah, ay ci rab ci rab caab. sama xarit. sama xarit yi. damay ñëw foo ba mu ñeex. nee naa leen lii ah voilà. Sénégal déjà drink park fii rek la am Sacré Cœur la drink park am kaay rek yéen gis nga góor leen dara. Hey,

下播。哦， <laughs> 来了。 fii la Drink Park la Drink Park la fii ñëw leen ñu foo ñu kaf ñu reetaan ba pare xoolal dem ci restaurant bi lekk après naan daa leen wéegi jaatuñ kon ku ñëw di leen baat bu la neexee nga tànn ko daabu jàpp résil ak waaj leen ba lekk ko fi am tarba ah ñeex ak am na kere am na neex am na hamburger am na poulet ay waay loo bëgg rek am na fi am na shawarma wala wala tey damay lekk ba suur voilà bu naa leen fii ah Green Park lii rek moo fi am foo reetaan lekk ba suur waaw jibi ginaar yi du ma ko jël du ma ko jël ginaar gu ñu dibi ah li drink park donc laa amee boisson yaa ngi nii ndox yaa ngi nii lekk gaa ngi nii ñaar gaa ngi nii fii rek lay amee drink park réservation da leen woote ci numéro yi ngeen indi fi seen njaboot ngeen ànd ak ñoom ñu kaf ak ñoom foo ak ñoom réew ak ñoom nee naa leen samedi bu jot maa ngi fi man xale yi jàkkaarloo ñoom ànd ñoom papa Mario ak tonton Jaat ñoom ñëpp dina ñëw ñu jàkkaarloo man ak yéen tey fii drink park bi waaye waaye léegi nii nag waaw te xoolal li gën a garaaw ah Green Park boo ñëwee daa am fooy toog pour lekk rek sax kaay la toog ko. fii laay ñëw sama coppee sama coppee mbër mi la laay dendal. sax yow ça va. waaw de maa ngi jaar yéen ci kaw. kon yow da ngay ñëw Green Park. ah. champion yow garaaw nga de. fii dafa neex de ah. gis ngeen gis ngeen xam ne leen ah mbëri yëpp dañuy dàqatu di ñëw drink baat xoola champion wax wax waaw fii ñu dundee stress bi waaw ak xale yi foo xale yi waxtaanal fan si xam nga waaw fii moom na trop waaye xam nga problème man mën naa foondoo yow mën naa fa bëre ak kaf ak yow waaye lekk noor ba du ma ko def de <laughs> yéen dégg naa mbëri da ngeen a ah mbër lii sama lekk la eh kon teel la mi ngi lekk la eh, champion te tonton Sidy kon yéen mbër yi nii ngeen def am ñi ma fekkee sonn moo indi sama lekk mu may agressé waaw da xala xala xala xala léegi da ngay jël bee ay waay mënoo jël bee après xool nga jël nga jëlaat ah de kon xaaral day ah, ah. ah ma indi moom ñeme na jox bii. yaa ngi ko may gën. ah. waaye mbër yow garaaw nga ne mbër. mais nag wuyu ma. gars yi ñu ngi lay xool de ñu lay seetaan de barki séeri Seydina Mohamed ah yow xool ak jàmm rek ngay am macha allah bëre bi set na kenn maa ngi fi te fan si yëpp sa daa xool boo amee teg combat del ñëw fii ci Dream Park nga toog récupéré am conscience tranquille sama combat maa ngi moom barki téere maam yàlla maa ko mën aja aja doxal naa ko ñu ko may bëre bëre kii ak kii. eh mën na bi ak kan ak karga ak karga ak karga doo ah amu ci bëre ñoom Dream Park waaw. waaw salaamaaleykum ñu ngi ñëw suñu fan si ak ñëpp di wax ne gën a jàpp daal jàmm laa fi gis parce que wax dëgg yàlla salaam yàgg naa fee ñëw fii neex naa feex la bu dul dara da ngay lekk naan waxtaan ak say nit am la. نحن اللي يعني. احنا خلاب من اليوم دي استرس بي وقتان بي حمله بس كان اللي جرجة في موي عزنا على باركينج اللي بي فرنا في بارك لا بوهم ده يبوني يجلس أسمان سي كاف رحمة أبي يا الله لا بيزنا في جامعة الله بيزنا في جامعة كاربان يمين بارك توكاني كبر أمي سكيرة بالي جيجنا نعمة أمي بيجنا نعمة سكيرة بس بس يا كرلون لون تناك أبران indi sa doom bu am loolu looy ragal mooy sécurité baa ngi fi Garga 2 ngi fi tamit ak koo xale yi ñoom bëreeg ñoom am di ñaan yàlla daal yàlla def ci jàmm loolu la ñuy

ah wala di dem liggéey wàcc fi yi ñun ñu toppatoo leen ñun suñu kii mooy toppatoo xale yi couple yi ñëw tam dañuy servir midi ceebu jën am na fi domoda am na fi ah, suppu kanja ah am nañ dibi ginaar yoo xam ne dëkk bi yëpp koy tudd bu mu ñun daal Dream Park loolu la loolu mooy suñu concept ñu ngi nekk si deux voies si 6 avant JVC ci boo jógee premier rond point Liberté 6 Parce que nous lañ parce que dañu sénégalais ont un problème téye appartement milieu genre humain. genre gens. Ils ont ah di fois. wacc des ville def course euh, parents en toute sécurité Les euh, besoin d'assistance. Ils ont plus de deux ans plus de deux ans moins de deux ans il faut l'assistance du parent il faut euh, parent bi ñëw col euh, doomam mais bu dul on gère les enfants Nous, ngi fi 10 10 heures la ñuy tijji ba minuit. te gis normes ay normes yi nga xamné ne normes yi mooy permettre ñu ñu ñu xamné fi amna sécurité. waaw kay xam nga lutax parce que suñu moniteur yi am formation BAFA France dañ leen former ci BAFA BAFA mooy ñuy toppatoo affaire sécurité xalé yi ak jeu yi ak nu ñuy toppatoo xalé nu ñuy waxee xale ñun lool lañu ñu miser parce que mënuñu jël ay moniteurs yoo xam dañuy yu xale wala dañ leen di kii dañ leen di xol bu baax ni ñuy jox ñu ñuy jox euh, xalé yi pour ñu surveiller leen dañuy xol sen moralité.

dañu am qualité de service qualité de réception qualité euh, voilà qualité dans dans tout ce qu'on fait. Donc il y a un aspect ludique et pédagogique en même temps. un aspect ludique et pédagogique parce que déjà, euh, dañ fi invité ay conteurs dañ fi invité à def théâtre man Manoumbe Manoumbe sax daf chaque samedi chaque samedi c'est moom xam nga euh, sketcham yi muy def aspect éducation bu bari. am na ay clown fii nit ñi tam dañ fiy organiser euh, dañ fiy organiser ay xale ay mag ay anniversaire du kii rek la ñuy def dañuy ay mariage fii cérémonie de mariage location ah dañuy def ah, location anniversaire dañuy def location euh, meeting euh, ay yu bëri daal yoo nga xamante ne pour le public suñu téléphone 77 548 28 15. 77 548 28 15. On vous attend à Dream Park. avantage du fii merci beaucoup avantage du fil. fii mën ngay tranquille On nga a toog On euh, nga demander lekk On a nga dema nga toog aussi détente espace détente Donc, loolu mooy loolu tax de pour parents mën nga ñëw tamit sans enfant sans xaleel ñëw rek pour détente discuter affaire wala toog waxtaan ay nit wala recevoir jox ci rendez-vous. donc cuisine bi euh, ça va avec euh, cuisine bi ça va avec euh, l'ambiance qui est l'ambiance pour les enfants. cuisine bi dañ koy adapté ñoom parce que il faut le midi midi ku nekk mën nga ñëw lekk comme aussi les entreprises entreprises yu nekk aux alentours dañuy commander souvent quoi nous nañu aussi tarif réduit quoi pour entreprise par contre ku nekk mën nga ñëw le soir aussi am cuisine traditionnelle ceebu yi dina am ceebu jën ceebu yap, bu kanje lépp et puis aussi dina am na fast food aussi fast food pour les pour les gens qui veulent ben shawarma ben hamburger wala ay neen et yooyu yëpp da nga koy def quoi. ñu ngi fii ci deux voies Liberté ici yi avant JVC. Thank you.